jëwriñ ji di ab Abdoulaye Sall mu ngay wéyal ab social bii nag da koo jëmale ci ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal rawatina ñuy dawal Jakarta ku ci nekk rek wala ku bëgg permis de conduire bëgg doon chauffeur. wala nga mën a dawal te amagoo li nga xam moom permis de conduire moom mii di Abdou Ndéné Sall ma ngay amal ab social jëm koy emploi des jeunes lu ñeel ay permis de conduire yoo xam ni ndaw ñi fës na leen ko amal ngir rek ñu gën a fësal seen ab liggéey moom mii di Abdou Ndéné Sall di idée boo xam day idée bu am solo mu jëmale ko ci ndaw ñi ngir yokk rek emploi des jeunes na ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kaw tali bi dawal ay jakarta ñoo ñee yoon la te am li nga xam ay permis de ak ki nga xam mën na dawal te amagul permis de conduire ñoo xam ne kii di Abdou Ndéné Sall nekk ministre mu ngi fas yéene jàppale jeunes yi eh, ci lu ay permis de conduire yoo xam ni eh, dina la ko wutal te doo fay dara muy lu am solo loo xam ne mu fas yéene koo amal eh, ci ndaw ñi nga xam ni ñoom ñooy xëy di dóor ci kaw tali bi yor ay moto ay moto rawatina ñi nga xam ne rek dañoo mën a dawal te amaguñ ay permis de conduire kon xam ne ni kii di Abdou Ndéné Sall mu ngi fas yéene amal ab sociale jëmle ko ci yéen yi nga xam ne yéen ay jeunes